بسم الله الرحمن الرحيم yii ni ngi ànd ak Basmala TV taxaw temm ci faj seeni bëgg-bëgg ci ay vidéo yu am solo abonné leen ci suñu seen bii di Basmala TV bu leen fàttee bés cloche de bi ngir jot yeneeni vidéo yu leen amal njariñ Basmala TV suñu yitte إياك نعبد وإياك نستعين ku yàlla fal te farle woo kam faale léegi mu ber la xëy la jox saalaali boo bëgg a xam ka mu falak kam faale ku dolli diina lépp mat la faale ngir ku xamut dàll mbiram du sotti ku xami dàll jàdd yoon day fuuti yaa say xinaa ban ba mandaa doole boole ko ak diina mu ñëw nu boole nga ne li ngay mandaa ci xeeti xam-xam lépp a ngi ñëw ñu ngi lay gërëm ak xam-xam ku ma sawal cereeg sànqal yët ban ba machine walal la mooma réew teg ceeb ba di mooyu def cereeg sànqal lootam ban ba def avance bu ne ñaaram ya billaayi seex bamba ku yër say banque wër maa nga seen ya fu mu dox ne mbàkke dëppal murit ngir yaa ngi xuus ci ban ba du gil kanaali mustapha yaaramba déwéni moo ma xat la dem ma diina ànd ak sa sadiq ngir diina booba la waa màkka dajeek ibliisu kër nat wata ngir bëgg ray ra'iisu maamam xusay moo tabaxoon suuf soosa ñu def ko saa mbur di bu wér commerce keroog la buur yàlla digal jibriiru neel mustapha tey na rañaan bum hóolu noonu yaa ngi wër këram na jàng yaasin tëf li ci suuf si sànni leen ñu baasin noonu la defoo Haydara jébbal ko kem la fa des rañaan di bañ ñu jot ko Aliyu Haydara fanaan ca lal ba di niru Mustapha tegoo maltomba fasaasa Mustapha rañaan xaw yoon wa ànd ak Ababakar mu jaar fa doj wa Ababakar di des gannaaw di jiitu ngir nay ci Mustapha ragal mu faatu ñooñale ñaar ñoo am ndam te xam jom Haydara mooma ak Sadiq ñoo rëy ngëm ku nekk jaay na bakkanam ngir waayam ca booba bis ñoo bëri di xalaat seen mbir ma ker bañ xëyee fekk na noon ya gaaru laajal suraaqata keroog la waaru téeméer ci ay gëléem la waa Quraysin teewal di neexal kureen di yaasin kureen di Baabakar Sadiq gorom ba mbaate nga jàpp ko ñu fay la limba loolaa taxoon jàmbaar ya soobu mbir ma ngir bëgg a reen di Mustapha mu baax ma keroog suraaqata ma Madina def na ko na Muusa defoon Qaaruuna xëccëm ma ba suuf wa la daanu naa Mustapha bul gaaw def safaanu xalal yu teew la doon jotee yu teewul ngir bañ dee yeneen ba bañ ne tuubal fas la ko jox boole gëléem fa saasa teg ci yëréem yónne ci kër ga xaalis yeneen ba naa ko duñ juboo ci loolu jébbalu daal mbaate ma dem nga dellu suuf si di parpari di lox di déglu wanal suraaxata ba góor ga suulu booba la sukk jébbalu xaw diina ngir daay ragal mbir ma daloon xaaruuna bu ray datu xànd ak lu mat sabxuuna da Mustapha diggante faak ma diina gidd bu dab gaynde ba jàll xurma fañ war a jaar jarul nga seetal ñoom ñëpp a jébbalu bu Mustafa te gëm Mawlaaya woowale yoon képp ku dab yaaram ba bu ngeen janoo nga sukkuraam ngir buur ba xarbaax ya Moustapha yoroon ca yoon wa diggante maltu ak galan ak kurwa manee fu koy bind ne xel du yóontu lu weesu weesu lim xel du ko daj ngir xóotu aji taal ji sëriñ Bassirou Seck